bismillahi arrahmani irrahim barke borom Tuuba Sëriñ Tuuba xaadalowoo law maxtaar lowoo bi muy dem gànnaar jaar na dagana Sëriñ Ahmad Tafsir radiallahu taala anu jàpp ci loxob doomam Sëriñ Muhammadu Lamin Joob dagana radiallahu taala anu jébbal ko Sëriñ Tuuba xaadalowoo law maxtaara lowoo li ko sëriñ bi njëkk a defal moo di am na këll bu fa nekkoon bu def cere sëriñ bi tibb ci ab tibb ni ko bëgg nga xam-xam mu ni ko waaw mu jox ko tibb ba siiw na sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana radiallahu taala anu bi mu fekkee sëriñ Touba xaada lahoo law maxtaara Lahu gànnaar da koo laaj ndax da nga delluwaat mu ni ko déedéet sëriñ Touba xaada lahoo law maxtaara ni ko loolu moo gën daa di woo sëriñ saxan loo radiyallahu taala anu ni ko dalal ko ni koy dalal gan nestud mu woko ko wax sa muhammadul amin gay radiyallahu taala anu natul ma sama gan gi ba xam fu mu toll jox ko ab téré ak ali wa. ba mu ko natto ba noppi ñew ci serigne touba khadalahu wallahu makhtaruhu ni ko wattuna lol te man na bind serigne touba khadalahu wallahu makhtaruhu bole ko ku ñuy wax serigne modou mbacke ture radiallahu taala anhu mu koy jangal xam-xam bi sëriñ bi ñëwee ci yéen daa yeesalaat njàng ma féetale ko sëriñ Mohamed Lamine Gay ak sëriñ Mohamadou Lamine Fati Mbodj ak sëriñ Mohamadou Lamine Baara Xarifaal radiallahu taala anhum siiw na bu ni seetloo sëriñ bi day mel ni léppam dara du génn xam-xam ak jafe ku muy liggéeyloo itam ci ñaari yi la lay liggéeyloo te mooy xam-xam ak jaamu yàlla subhanahu wa taala wala luy taxawal di dimbule ñi ci nekk wallahu aalam yiw na sëriñ tuubaa xaada lahoo laaw maxtaar lahoo mas naa génn ci jàkka ji ni kii kan la mu ni ko man la Muhammadu Lamin Jóob sëriñ tuubaa xaada lahoo laaw maxtaar lahoo ni ko sant leen yàlla mu ni alhamdulillahi rabbil alamin sëriñ bi baamu ko ba muy ñetti yoon mu ni fu ñépp di mujj ku fa njëkk war ngaa sant yàlla subhanahu wa taala siiw na alhamdulillah sëriñ Mohamad Lamine Joob Dagana radiallahu taala anu. bokkoon na ci ñi ànd ak sëriñ Tuuba xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo juge ci yéen ñëw njaareem siiw na sëriñ Tuuba xaada lahoo lahoo maxtaar lahoo moo digaloon sëriñ Mohamad Lamine Joob radiallahu taala anu muy nodd ginnaaw ba naar ba daan noddu faatoo daana ko xaamal daana ko rajasal xasida yi itam bu amee gan gu mu fonk siiw na noo ngi wéy di xam bu wér dunduk Sëriñ Tuuba xaada lahu law maxtaara lahu mel na ni lii muy def war na noo ni ay xasidaam lanu war a jël di ko ganalee di ko bëggale képp guñu ku ñu fonk waaye waruñoo jël wayi jàmbur wala waxi jàmbur yoo xam ni amul genn leer di ko ganalee ay gan wara no xam ni itam diglu xasida yi borom tuuba xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo am na jeexit lool ci ab xol moo tax nu war koy saxal fu nu toll di leen diglu bu nu koy def sunuy xol dana set lool bu nu ko def itam di diglu rajo yi ak waxi télévision yi sunuy xol dana taq lool yal na nu ci sëriñ bi ak yëfam faaw wallahu aalam sëriñ tuuba xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo nee na bu may jàng alquran day mel ni yàlla mi ko wàcce moo koy jàng may dégg wér na lool lii dañuy xamal ni jàng yi wuute na lool mën naa gis ku wàcce ab kamil mu mel ni junni kamil ci kaneen wallahu alam wa innaka la tullaqa alqur'ana min ladun hakimin alim sëriñ tubaa xaada lahoo law maxtaar lahu am na yoon mu masa dem ndar ànd ak cheikh ibra faal radiallahu taala anu. bi mu wàccee mbooloo mu ni kër kër këpp ca kawam sëriñ bi gëmm jox ab loxo maam cheikh mu koy wommat wér na xëy na li wara loolu daa bañ a gis lu mu bëggut a gis mel na ni nettali bii di bëgg a ñëw dana leeral loolu wallahu alam sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo yoon wa mu demee Dakar kër ga mu nekkoon borom da ko wax ni dama bëgg waa kër gi ñew nuyu si la sëriñ bi ne ko bismillah mu daal di fay lamp ba xëy na da doon waxtu guddi ba ñu nuyoo ba noppi mu koy taal sëriñ tuba xaadaloo laaw maxtaar loo ni ko looy def mu ni ko damay taalaat lamp bi sëriñ bi ni ko ma gëmoon wér na li walal sëriñ tuba xaadaloo laaw maxtaar loo di gëmmu mooy bañ a gis lu haram war nañoo xam li lépp loo xam ni sunu borom subhanahu wa taala da koo xaraamal képp ku ko def faaw nga am lu mu la nattoo ci aduna. boo ko bàyyee itam faaw mu am lu mu la tere la ci aduna. niti yàlla yi nag li tax ñuy mën a daw tere yi lool dañuy gis lor ya ca nekk is fil bidayaati xawfu sambi yasjuruhum wa fi nihayaati ijlaalul jalalaati wallahu alam téeméer bi ak fanweer ak juróom ñett Sëriñ Tuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo nee na ab yël nga ñëw ca kanam boo xam ni bu ñu ca àggee ku jëfanduwul da nga rot su boobaa ku ñu teyiwul da nga rot wér na na nañu teye am na koo xam ni Sëriñ Tuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo daana ko yónni kayit bu ko jëndee ba ñëw mu yónni waat ko te buy ñëw day fekk mu bind loolee ba di ko séentu te nee na jukki bu rëy lay doon siiw na loolu li muy xamle mooy kiimaan ak minni mi bokk na ci kiim ngaan gi dawu ko yàqal dara ci li muy jàng alxuraan loolu tax na mën naa xëy bind lu toll ni ab kaamil wallahu alam sëriñ tuba xaada lahu laahu maxtaara lahu mas naa yónnee ci sëriñ Madlamin Gay lahu taala anu wax ndaw la su manee na ñëw su manul na ñëw booba daa tawat ba mu agsee Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo wax ndaw la ni ko neel mad laamin yëg nañu ko booba daa am ku fa nekkoon ba mu génnee ba mu agsi sëriñ bi ni ko yéen ñi fekke woon njëlbeen gi dama bëgg ngeen fekke mujj gi saa borom jaam bu mu bind andi ko ci àdduna sàkkan na ko bis ak waxtu woo xam ni bu agsee dana ko fi jële te du tàggu kenn daa di ko jox warka ni ko dana masa jafe lool siiw na sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaara lahu daana jàngloo sëriñ mohamadu lamin jóob radiallahu taala anhu ay dog yu mu waroon a jàng moom sëriñ bi siiw na am na ku ñuy wax sëriñ Ousmane Njaay radiallahu taala anhu mas naa guddee ci kër sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaara lahu sëriñ bi ànd ak moom ba mu àgg ca këram ba dugg serigne bi doora delu siwna serigne tuba sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo mas wax len ci ay ñoñam bu ngeen diisee ñi yanu len bu ngeen woyefee ñu yanu len kon wayef len noppal ñi len di yanu siwna da bëgg a xam ne ni nu ngeen mëna mel nit ñi di and ak yeen di len warmal. kon na ngeen and ak ñoom ca melo wa gën wallahu alam sëriñ tuuba xaada lahu allahumma axtaara lahu nee ci maam moor anta sali radiallahu taala anhu andiwul aduna ku yees waliyu siw da daa bëgg wax ni doomam yépp ay waliyu lañ kenn laalul lenn lu ñuy tere ba noppi sax ci ndigal yi wallahu alam am na ku masa bind ab bataa xel sëriñ tuuba xaada lahu allahumma axtaara lahu booba ma nga jolof di ko xamal daa am doomam ju fi nekk ju mu bëgg mu dikk jàppale ko ca njàngale ma bi sa bi ko sëriñ bi xoolee ba noppi woo kookee ni ko dama bëggoon nga dikk dellu mu ni ko sama baay loolu muy wax dama bëgg rek waaye bu ma bàyyi woon ba nga noppi ci man la may gën a bëgg siiw na am na loo xam ni sëriñ tuuba xaada lawo law maxtaara lawo moo ko bindoon mel nañu da ci doon tontu ku jëmale woon ci moom ay laaj yu ko jaaxal ci mbirum sëriñ bi li bokk na ca li ko sëriñ bi wax shariatu xëy na da cee jublu lu mel ni julli ak woor ak yi nu xam ci ndigal yi mu ne ko sharia ba mu ñëwagul lislaam daa def géej gu yaatu te xóot amul fu mu yam mbooleem borom shariatu yépp xëy na yonante yi la ci jublu alim salaam borom shariatu yépp war nañu ak seeni gaal soobu ci biir géej gi ba ñu demee ba mu yàgg dañoo mel ni ñu gëlëm xamuñu fa ñu jóge woon ak fa ñu jëm te sunu borom subhanahu wa taala bindoon na la mu bëgg lépp ak la mu bañ lépp lawhul mahfuz ba ñu meloo ni ku lap wala ñuy bëgg a lap sunu borom fa lawhul mahfuz door ko ca biir géej am na ñu ca xam dara am na ñu ca xamul dara mu fabaat aliwaja yóbbu arash képp ku mënta dem ca pey bu tedd boobee tiim alu ja yëri ñaari wet yépp ba mu àgg lii nuy def na nga ci bokk wala nga maanu ci wala lu la dal bu ëllëgee bul mere kenn yaa ko teg sa bopp siiw na barra anil baasi min al amraadi wa kabba man ankara bi i'tiraadi min ناقلا wa min ومن wa fi حروفي lam amin fatantani fitana man taqaddamu falyatini minka bihim taqaddamu serigne bi war nanoo xam ni li ko andi aduna mooy dimbulinu. waye waaye ak nun dara ni mu ko leralé ci waxam moo tax li ni dimbale ci moom mooy rafet ñort bu wër ci moom te xam ni lu mu def nonu la daana leral lu bari itam di wax ni am na mbir yu haram ci moom te dagan ci kanen kudul moom am na itam yu war ci moom te xaraam ci kudul moom ixtasani bima ala xayri xaraam fardan alayya min janabiya yuraam xarama aydan alxalilu walxabib xalayya jaisan yuxaadu lillabib bu nu xasee xam ni bokkut ak nun li ci des moo di topp li mu nuy digal ak bàyyi li mu nuy tere la yusalu amma yafalu wa hum yusaluun halla man allasi lahu alkalamu ilman lahu lam tanhu aqlamu wallahu a'lam sëriñ tuuba xaada lahu law maxtar lahu nee na lu bon yomb xam lu baax yomb xam képp ku bàyyi lu bon dootoo wuti lu baax mukk lu baax moo lay wuti. si bëgg a boole lu bon ak lu baax mi ngi mel ni ku jàpp ab bukki di woo ay bay walam xar wala fas wala mbaam ku yore lu bon boo wutee lu baax doo ko am wér na lool man bil xaraami abadallaha fala yakunu illa mun munsafila sëriñ bi dañuy xamal ni bàyyi tere yi mooy lépp ku dul def li yàllay tere lu mu bëgg da koy yomb bokk na ci li yàllay tere waxi caaxaan ak jëfi caaxaan ak jëw ak fen ak naxaate ak nappaate wallahu alam sëriñ tuba xaada lahu allahu maxtaar lahu bi muy bind rabbi bi ma yashahu ba agsi ci yaa malikal mulk yaa man jàllahan xawadin sayiduna jibril alayhi salaamu dani ko sa borom neena loo ci teg mu def ko mu bind irham jamia alwara ya haadiyan radaa siiw na sëriñ tuba xaada lahu lahu maxtaar lahu mas naa dégg kuy jàng mawaahibu naafi ba mu yegsee ci yaaman ajaaba man istajaaba ba bay wa jeex dugal fa ay baat sëriñ Tuubaa xaali la wala maxtaloo ni ko koo kii nañu ma ko wool mu dikk sëriñ bi ni ko ana lu ma dégg nga di ko wax mu ni ko dama doon jàng xasaa idi sëriñ bi ni ko ana noo ko jànge mu waxaat la mu waxoon sëriñ Tuubaa xaade la wala maxtaar la ni ko loolu waxuma ko waxluwuma ko it man de dama ni ya man ajaba man istajaba habli ijaba fi sanni yokuma yokkuma ko wàññuma ko yokluma ko wàññiluwuma ko kuko jangi ni ma ko binde lo ci wut fekk ko ci kuko jange nenen lo ci dajel ya ko tek sa bop werna na nu ci nettali bo xamni ni dana nu war jaaxal ngir li muy nuru ak wote ci kaw waxon na lu bari ci loolu boo xoolee waxtaani Serigne Touba xaajum ñeenteel bi da nga ko gis Serigne bi moo waxoon fu ñu koy yàqe dara du fa yàqoo moom mu waahibu muy waxtaan wu wér tey gis nanu li mu wax man may leeral bu wér loolii ci barkeem ba ñépp xam ko Serigne bi nee na saa daf saa nafxin bila dari amul lor moo tax muy leeral njariñi xaside gi di xam le ni fu ñu koy jànge di ko yàq mooy gën bépp bërëb boo xam ni kenn du ko fa jànge ba di ko yàq waa moom tey li mu def du yàq ndax bu yàqoon sëriñ bi du ko wax dara waaye daa dolli waxi sëriñ bi loolu leer na naññi wallahu aalam ñu weti nettali téeméer bi ak juróom fukk sëriñ tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo mas naa wax ana ibra buuba radiallahu taala anhu ñu woowi ko ca kër sëriñ masamba radiallahu taala anhu mu ñëw sëriñ bi ni ko jàngal foofi nga taxaw mawaahibu mu tàmbali daaj bu mu fab sëriñ bi ni ko waxuma boobu mu daal di fab daaj bu dii boo bii nga xam ni moo ko daan jàngal boppam ca géej ga sëriñ bi ni ko hakkasa ibra boobu laa wax mu tàmbali di jàng ba mu yàgg serigne touba khadilo law maxtaar lo jug ubbi barag ba dugg ci biir genne kessuk souk warga ak sakup sukar ni ko ko kii ngay tag mo la ko jox muy jangati ba mu yàgg sëriñ bi dugg ci biir jeri ñaari biteli sik ba mu agsee di ko laqati mu far fenko ca kawam te moy toj la bëgg wax xëy na bi nekk ca ba mu yàgg mu jox ko bi baraag ba ni ko Ibrahima baraag bee ak la ca biir doom baa ngi nii bu subaa fu la soob ak li ci biir fere yi yóbbul la ko fa ki ngay tagg moo la ko jox ca benoon yoon la Sëriñ Tuubaa xaadalawoo la moxtaar loo wax ni yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbi dafee dikk ni ma tagg woo wii ñuy wax mawaahibu da koo bëgg a dégg te ibra buuba man koo nettali wér na wax nañu ci nettali ni serigne tuuba xaada lawo law makhtar lawo bi mu bëggee ñëw aduna diwun ñu mu àndal bokkoon na ca ñamu sàkko woon maam cheikh ibra radiallahu taala anu mel na nu foofee la ñu waxante woon ni bu dikkee day féetewoo di ko liggéeyal sëriñ bi féetewoo yàlla subhanahu wa taala siiw na loolu mooy gàttal gi sëriñ tuba xaadalawoo law maxtaarlawoo bi muy nekk tuba sàkku na ci boroomam subhanahu wa taala ay ak may mu xamal ko ni may gi fu ma la ko joxe foofa day yàqu mu ni ko fa nga ma koy joxe yaa ma koy tànnal waaye du ma tànn fenn foofa di yàqu ci man ngir sama sàkku sunu boroom ni ko awal yoon wii muy yoonu jolof wér na sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo bi muy nekk jolof nee nañu daanañu nekk ci joxe reer ak seddale ba mu génn di julli ji fajar ngir mbolo mu bari wér na am na soxna su mas di andi am ndox ci néeg bi sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo nekk bi muy yenniku gis fel yi ak kutti yi bari lool mun ni bismillahi jàmm Sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaraloo ni ko bul waxati loolu maram del wax bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim lu mu jiitu jàmmu rekk cay mujj wér na lool kon tey serigne bi xamal nanu bu wér njariñul bismillahi rahmaani rahim xamal nanu itam waree si coo boole lenn kon war nanu bu nuy lekk wala nuy naan wala nuy toog wala nuy dujug ni di ko nu di ko wax sunu ko du nu amati aw ay ci dara loolu mooy bismillahi allasi la ma hasmihi shay'un fil ardi wala fi samai. lu melni ni di ci yok barke borom tuba dara ko ci day yok way du wàññi ndax bu Chouaïbou radiallahu taala anhu wax na ci buhayatul muridin naka nonu khadim rasul kaw bammel bu ko bindu de su ko laaj sëriñ saalihu radiallahu taala anhu daana wax bismillahi barke borom tuuba doy na ci lépp looy tàmbali wala looy dugg wala wala wala mel na ni sax barke borom tuuba kese ci ni ma gese moo gën a mat ci am murit bismillahi kese ndax sëriñ bi léppam yàlla la yàlla nag moo boole ñépp ak lépp wallahu aalam ñëweti nettali téeméer bi ak juróom fukk ak juróom sëriñ tuuba xaaja lawo law maxtaar lawo mas naa fëgg sëriñ sire lo guddi radiallahu taala anhu ni ko sire mos penci mi de len ko leeral bu ngeen ko dul leeral léegi am ñeneen ñu koy leeral ñu dud yéen ñii de len ko leeral wér na am na soxna su ma masa wax sëriñ tuuba xaaja lawo law maxtaar lawo ñii xol ci kër gi danu nuy sonal xëy na boobu tubaab bi dañu daan xool wàlluk set ci ñëpp wala muy jamonoy peste ba sëriñ tuuba xaadalawoo la maxtaaralawoo ni ko loolu war ngeen koo rus nasaan yi nekk foofu ñëw di leen sonal ci ak set dee sa war di jànge ak set ci yéen waaye ñoom waruñu leen a digaluk set wér na lool soxna hawa ubusa radiallahu taala anhu mas naa wax sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaaralawoo dama gént nu nekk yowmal xiyaam kuréel yu bari wër la ñeenti kuréel yi sa ci yow gisuma ci kenn ko sant mbàkke sëriñ tuuba xaaja la law maxtaar la ni ko noonee ni la ame gis nga bi nu nekkee adduna képp ku ñuy tudde ab taalube bu nuy wax ak moom bu ko ki ñuy askanale ci man ñëwee bala ñoo ak moom dara dañuy wax ak moom ba noppi xam nga loolu lu ko waral foofa masla amu fa fii nag masla dafee am ndax ñooñee bu ma defutoon noonu danañu am lu leen naqari ngir féetale guñu leen di féetale ci man foofa nag xëy na yow man xiyaam lay wax ak tool ba dong moo fay jariñ loolu moo waral gisoo ci ñoom kenn ci ñeenti kuréel yooyee wér na yal na nu am ak taalube gu wér su ko defee negam gisuñu sëriñ bi lii sunu talibe ki ñu doxale sunu digg ak moom nu jàppe ko ni sëriñ bi di ko warmaal di ko jox di ko dimbule wallahu alam sëriñ tuba xaadalahoo law maxtaarlahoo nee na raqib ak atid am na ñaari malaaka yu leen gën a gaaw waxtu wu nekk ñi ngi ci seeni ndigal seen paxi bakkan yi ngelaw li ci bàyyi ko kenn ku nekk malaayika la ku ci génn balaa si dem na fa sun boroom ni ko jaam bi maa ngi ko bàyyi ci nangam wér na day mel ni nun ñoo nekk fi sunu boroom ba tax na li nuy def ak li nuy wax dara du ko ci réer ala yaalamu man xalaqa wa huwa latifu xabir wallahu alam Sëriñ Tuubaa xaada lahu llahu maxtaara lahu nee na bi muy sànni ab derem ca kaw géej ga daa mel ni am pax der bi tege ca kawam siiw na loolu li muy saxal mooy julli gi mu julli ci kaw ndox mi xar baax nag ci yàlla lay bàyyi ko ndax ki ko may mu sànni der bi ci kaw ndox mi di ci julli moo def gaal yi di dew ci kaw ndox mi te duñu suux wallahu aalam sëriñ tuba xaada lahu allahu maxtaara lahu mas naa wax sëriñ mën numbe radiallahu taala anu loo xam ne li muy ci gattal mooy lii dëgg dëgg yoon wii mooy joxe sa bop ak sa alal ak say doom ngir jëmmi yalla subhanahu wa taala siiw na ina allah ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna baye bi jeex sëriñ bi da bëgg nuy roy sahaba ya radiallahu taala anhum motax mu ñu digal joxe sun bop te moy jébbalu ak joxe sun alal te moy hadiya ak dom al malu wal banuna zinatul xayaati dunya wallahu alam amna bis serigne touba xaada lahoo lahu maxtaara lahoo woolu fukki nit yu tuddu muhammad yu man alquran ba ñu ñëwee ba tok mu dikk ni len assalamu alaykum sant leen yàlla ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin mu waxaat ko ba muy ñetti yoon ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin sëriñ tuba xaada lahoo lahu maxtaar lahoo ni leen li tax ma di leen sant loo yàlla subhanahu wa taala da ngeen a ëppul yeesu leen gimiñ jàpp leen bu ngeen ëppoon da ngeen di ñëw ba dem ma door a ñëw bu ngeen yeesoon damay ñëw ba dem ngeen door a ñëw bu leen gimiñ jàppoon dañuy jamononte ngeen maanu ci nun wér na nettali bi andi naa ko li tax ma koy bindaat daa am tuuti wuute ci waxin yi lii sëriñ bi def ci tur yi dana nu xamal ni tudd muhammad ak man alquran dara jala ju rëy ba tey li mu wax gimiñ jàpp leen dana nu xamal ni gimiñ mën naa teree def nit lu ko war wala mu def loo ko lu mu wërta def yal na yàlla musal ci lori gimiñ ak bët ci barkeb sëriñ tuuba xaada lahu laahu maxtaara lahoo